jërë ngeen jëf euh, mbokk yi nga xam ne yéen ñu tàmmoo bàyyi xel ci seen web tv alazar touba point rawat na seen émission bi nga xam ne moo di zone 28 ñu ngi leen di nuyu di leen euh, sant di leen euh, gërëm fépp fu ngeen mën ci nekk ci àdduna bi tey jii nag ñu fas yéene dalalaat beneen gan bokk si dëkk bu sell bi di Touba bokk tam ci njabootu sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di sëriñ Saliou Mbacké bu sëriñ Alaaji Baara nekkoon juróom-benneelu bu sëriñ Touba Euh, Serigne yu Mbacké nag bu ñu ko waxee fii euh, suñu xel dina dem ci lu bëree bëri ci lu jëm ci wàllum euh, li nga xam ne ci la yëngatu ci lu jëm ci wàllum transport waaye itam dinañ gis tamit beneen faset ci moom mooy jege gu mu jege woon ki nga xam ne moom mooy juróom rawatina bi nga xam ne ci la nekkoon xal général des Mourides jamono ji nag ñu nekk ci weeru rajab xam nañu ne boobaak léegi juróom-benni at a ngi nii euh, bisu Kazu Rajab bu jublu si jour bi nga xam ne moom moo ko jiitu dañuy faral di defal ki nga xam ne moo di Serigne euh, Bara Mbacké Falilou ñaan waaye itam boo xam ne njaboot gi yëpp dañuy dajaloo euh, sotante xalaat saafonte waaye itam def ay jaamu yàlla def ay bernde ci dëkk bu sell bi ju Touba ci ëllëg sañu doog def li nga xam ne moom moo di màggalu Kazu Rajab bi mënoon nañu dem seeti ay yeneen nit yoo xam ne nii peut-être xam nañ lu bëree bari ci jëmm ju sell jooju waaye xam-xam ma dem ba ma dem ba gën laa xam boppam moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu taxawoon ak sëriñ bi lañ euh, bu yàgg ba ba léegi kon yaakaar naa ne am na lu bëree bëri loo xam ne ni xam na ko ci moom bi mu nekkee xalifa avant mu koy nekk ak lu bëree bëri ci loo xam ne ci dundam la lool nag lañ fas yéene faram fàccee euh, ci biir waxtaan bi tey jii laata loolu nag dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo si tànn sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay bu baax. Mm-hmm. maa ngi yëkkati mu di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu muy nuyu bislaam bi nga xam ne képp ku yox ashadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika la nuyu boobu mooy bi la suñu borom jagleel te lépp lu nit di wut ci aw yiw rek mu ngi ci kon maa ngi ko yëkkatiwaat jëmale ko ci nit ñu sell muy mbokki julli yi nga xam ne ñu seetaan rawatina yow bi nga xam ne yaa jóge ca bërëbu liggéeykaay ba ñëw fii set suñ ci daara ji waaye nag di jiital ci nuyoo bi ko yàlla jiital mu di sëriñ tubaa sëriñ si Sidil Maxtaar di ñaan yàlla sunu borom bi tabaaraka wa taala mu may ko fan wu gudd loolu ànd ak wér gu di ñaan it mu sut yàlla yonent yàlla nooyin fanam ndax yàlla ma ko mayoon mi ngi fi te gënu ca yeey yonent yàlla nooyin gënu ko ca yeey mm. waaye di di nuyu tamit sunu buntu ci Cheikh Mamadou Fadal mu di Serigne Abul Baraka mi nga xam ne tey moom la ñuy xoolee Cheikh Mamadou Fadal su ma tuddee Serigne Abo tudd sama Serigne sama kilifa Serigne Mouhamadul Moustapha moom Cheikh Mamadou Labine tudd naa njaboot Serigne Touba gépp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di nuyu bu baax fas yéene yëkkati ay kàddu ci seen digal ak ci seen tuur ay lenn ci lu ñu xam rek ngir ni ngi ko sàkkoo taamoo ko noonu muy jëmm ju sel jëmu ju màgg jëmm ju tàdd mu di Serigne Touba Cheikh Mamadou Euh, ni ma ko waxee woon sànq bi ñuy doog a waxtaan bi juróom benni at a ngi nii boobaak léegi njaboot gi dajaloo buñ ne suba la Kazu Rajab wala ginnaaw suba la ñu def benn bis boo xam ne ñu ngi koy amal fële ci Aliya fàttali ko ci jëmm ju seetlu jooju di sëriñ Alaaji Baara Mbàkke Fàllilu waaye tam nekk bis boo xam ne taalib yëpp dañ fay dajaloo njaboot gi yëpp tamit mën nañ ni dañ fay dajaloo mm-hmm. euh, initiative boobu ci ci kan la jógee waaw loolu li ma ciy leeral tuuti rek bokk na ci fi mu jóge moom da daan wax ne aw mu bis sama lépp dama ko jël dugal ko ci Amadou Fadal te loolu firnde la ci ndax bis bi mu nelawee bi mu dellusee ci lañuy ñuy màggal Cheikh Modou Cheikh Modou Fadal way juróom mu tedd sëriñam ba yaakaaram ba ba tax na te liggéey na ci jamono loo xam ne jaadu na ñu wutal ko bis boo xam ne dañ ci jàng alquran di ci jàng ay xasiide di ci bernde ngir yàlla sunu borom yokk ko aw yiw yokk leeram comme ni ñu koy waxee loolu dolli koy eh, ngërëm fa mu nekk loolu mooy sababu euh, ñu ñu ñu ñu tànnal ko bis boobu. Mm-hmm. te it fekk na sunu borom moo ko njëkk tànnal ndax bu demoon bu demoon àjjana ci beneen jamono it faaw des koy wutal bis. Mm-hmm. waaye nag rawatina bi nga xam ne léppam da koo dëppale si amul dafa àndal damaa jëlale weer wi waaye jege gi mu jege rek moo tax. ak itam te xam ñu xam ne ñaari bis yi benn la bu ñu defoon tey bisu màggal ñu ko koy defal it wala ay bis bu ne nit ñi dañuy ñëw ñaari yoon. Mm-hmm. ci ndimbalul euh, kilifa yi ci njiitul Serigne aboo ak Cheikh Mouhamadou Moustapha loolu moo tax ñu dëppalee ko noonu nga xam ne ku ñëw ci bisu Cheikh Mouhamadou Lamine bi rek du jar ngay delluwaat danga nga xaar ba bisu Cheikh Mouhamadou Fadal bi ñëw. Mm-hmm. te loolu it euh, mënul ñàkk ci ab julit rawatina nag kilifa gu toll noonu ndax euh, kenn nattabliwut ne def na ci jamono loo xam ne. rawatina ci dëkk bu sell bi ñu toll ñu nekk ji Touba. Mm. jaadu na bu demee àjjana bu àpp bu dellusee ci ati wolof ñu daje euh, gën a yeesalaat suñu suñu colère ci moom gën a yeesalaat tamit suñu suñu yaakaar ci moom waaye di ko ñaanal loolu mooy sababu bis boobu nga xam ne ñu ngi koy def euh, bu ñu nee suba la màggalu Cheikhul Fadal. Mm-hmm. pourquoi Aliya. waaw Aliya fa la fa la demee àjjana benn te loolu rek jar na màggal. ndax jort naa ne bu ñuy wax anniversaire ñu ci ëpp ca bërëb ba ñu gënee àddina lañu koy defee te it muy dëkk bu am histoire ci yoonu murit ndax li tax mu histoire yoonu murit amul lu dul symbole jumaay Touba te jumaay Touba mën naa ne la ëpp ci lañ li ci dem tool boobu tey kër Cheikh Mamadou la mi nekk foofu lañ ko doon bayee di ko indi Cheikh Mamadou Fadal daan ko indi di ko def ci jumaay Serigne Touba ji ñaari ñaari ñaari mandarga yooyu rek jar na ñu defe ko fa waaye tamit mooy dëkk boo xam ne Cheikh Modou Fadal moo ko joxoon ne ko nag rafaatale naa la ko te lépp loo xam te ni war na ci nit nekk ci ab dëkkam na ko def te boo ko boo toogee lépp noonu la fekk si moo tax bi bi ko bi ko bi euh, doon Serigne Touba fekk see euh, mosu koo ginnaawal naam waaye da caa gën a taxaw jot naa ne koo xamoon démb xam tey xam ne bu doon nit koo xam ne sax bopp ma ko gën a yitteel ale dana weesu lii waaye daa nekkoon koo xam ne nag euh, day jiital askan bi jiital taalibi Serigne Touba yi doog teg boppam doog teg ak njabootam loolu moo waral euh, Aliya bi mu nekkee ci waajtaay dem àjjana it fa la ko suñu borom xiir lu jiitu loolu it ma nga fa woon waaye nag bokk na ci li tax ñu gën koo sàmm foofu daal mooy dëkk bi nga xam te ni moom bu ñuy tudd Cheikh Cheikh Modou Lamine foofu lañ koy tuddalee ndax boobu la ko Cheikh Modou Faral joxoon loolu bu benn li sabab yi li tax ñu koy defee foofu. Mm-hmm. sànq ci sa biir wax nee nga soxlay nit ci la jiitaloon ci lu mu mënti doon ñu euh, xam ne sëñ euh, Alaaji Bara Fall nekk na xalifa Serigne Touba waaye tam bi mu nekk xalifa Serigne Touba fekk na mu nekk xalifa Serigne lu mu nekk ñaari ñaari xamu euh, nuñ ko mën a tuddee ndombay tànk yoo xamante ne ni dajaloo na si boppam. Mm-hmm. bu génnee ci ci ci personnalité bi nga xam ne nii amoon am na ko muy nekk sëtu sëriñ Touba benn. sëriñ Fallou nekk sa way jur ak ni mu mel ci yoonu murit mhm. amoon na beneen kanam buñ xamoon ci sëñ ci sëñ Baara muy nite gi ak ouverture bi nga xam ne ni am na ko ak xam xamoon àdduna en tant que koo xam ne yow sa way jur la waaye terewul lu bëree bëri jàngat nga ko ci moom diirub li ngeen nekk lan nga ñu mën a wax ci ci loolu. waaw loolu moom soxna si yaakaar naa ne dinaa ci am mbégte loolu roq ndax doon na loo xam ne ni nga waxee rek lu ma dund la naam nag mooy sama way jur te mat ko sëkk féete ma fépp féete ñi mu yilifoon ñëpp fépp rawatina ak euh, njabootam yaakaar naa ne ouverture boobu ngay wax ak ni ngeen ko tuddee li ñuy wax ñaari ba tànk loolu xam nañ ne fa la maxaama yam yaakaar naa lu ñu duyootu rek ba xëy doon Serigne Touba yaakaar naa ne amutut leneen loo xam te ni des na ci sa maxaama te loolu kenn ku ne xam na ne loolu egsi wu na ci Cheikh Mouhamadou Lamine te it Euh, yombul woon nga nekk sëtu Serigne tubaab bi nga xam ne yaa ko njëkk a wutu ci saayir loolu kenn ku ne xam ne loo gàtt gàtt dégg-dégg ci yoonu murit mun na ay ay am am am mën naa ko tuddee rumeur wala ay riir yoo xam ne ñu bari jortoon nañ ne bu doomi Serigne Touba yi demee. Mm-hmm. Euh, mbirum Serigne Touba naam du naax saay waaye des na ci dégg loo xam ne euh, du neex ñu bari te loolu yàlla dogal na bi mu egsee kenn déggul loolu ba bokk na ci ñi njëkk a joxe seen bopp. ñi nga xam te ne seenu seen seeni seeni seen i wayjur rakk lañ Serigne Touba muy waa kër maam Thierno Birahim loolu maa ko fekkee euh, guddi gi ñu sëriñ Serigne Saliou ba egsi ci kër gi la ci njiitul suñ maam Thierno Mbacke Daaru Manaan ci turu Serigne Cheikh Khady mooy ñëw wala boog bokk na ci njëkk a njëkk ñëw joxe boppam Daaru Salaam tege ci keneen tege ci keneen tege ci loolu firnde la ci nag le la bari doon xalaat loolu du am. Euh, ñu dox ci tuuti nag mu dajalewaat. képp ku Serigne kër goo xam ne dafa nekk Serigne Touba ko fa def rek woon na la fee ci kër Serigne Touba nga ñëw ba mu ñëwee kàddu yi la muy bari bari la ci nit ñi gën a retenir mooy mbir mi ña ko moomoon dem nañu ñi ko bokk ñoo fi des yaakaar naa ne loolu mun na tekki lu bari. Mm-hmm. ndax munoon ñu bari jaartoon jortoon nañ ne moom bu egsee lu ci lu muy def lu nekk du ci yëgal kenn wala du ci tàgg kenn wala du ci def li ci def laa te loolu loolu la njëkk a wax kon bokk kon loolu. baatinam tàmbali naa feeñ foofu ci xalaati nit ñi ndax fekkiwul fi ko nit ñi xalaati saayir waaye ndaje moom njëkk def rek loolu lañu njëkk indi def ko muy muy muy muy euh, li ñuy wax cérémonie d'ouverture am nga xam ne mu murit mun naa ne bokku na ci li gën a rataxal euh, nekku Cheikh Mouhamadou mooy woote boobu te ñu bari amoon nañ ci euh, dut comme ni ñu koy waxee waaye yàlla mi dara wut nag ak liggéey bu wàlli wutal na Serigne Touba jort naa ne du woon du ñu woon ginnaaw ci saayir muy am leneen lu cay tege waaye nag tamit feex la tamit euh, mbir dëgg la lu jag yàllaa ko jagal ak ca ka yàlla rus ba mu jag waaye ki fe ki tombeeg ba muy jagit kooku am na chance bu rëy te loolu yàlla dafa ko si amul lamin te loolu mooy wéy ba léegi ci Serigne Touba Serigne Sidi Maxtaar ñu dal di ko ñaanal bu baax hmm. loolu bokkoon na ci ay ay ay maxaamam ak ay darajaam yoo xam ne loolu yàlla jagle na ko. Mhm. ci li nga wax ci ci may yooyu parce que ñu bëree bëri dañuy xaw a bu fekkee woo yoonu murit bu baax a baax hiérarchie bi nga xam ne moom moo ci am. Mhm. tey bi fi Serigne Saliou jógee comme ni ñu ko waxee euh, subitement rek la ay nit ñëw xam ne moom moo fi moom mooy moom moo fi war ki ñu jaayante ak moom. Mhm. loolu loolu ñëw naka naka nga ko dundee. waaw loolu liggéeyu Serigne bi loolu liggéeyu Serigne Touba la loolu du du Cheikh Mamadou Lamine rek ak du ñu jaayante Serigne Touba mooy li ñuy wax. dafay programme ay mbiram ndax du nit koo xam te ni du gis la ca ginnaaw mbir ba wala du xam ne ñëw débb te yaakaar naa ne bu fekkee loolu dalu la rek dafay jaadu liggéey bu ton ni bi mu liggéey mu yoonu murit euh, ku mu ko teg ci loxoom rek fekk na am nga maxaama bi am nga grade bi wóolu na la te loolu moo moo moo mooy ba léegi mooy dox ñi fi nekk ni dañ fi nekk rek waaye Serigne Touba mooy doxal te suñ si di Maxtaar wax na ko bu yàggul rek man lépp lu ma def rek sëñ Tuubaa moo ne ma defal nankam te loolu mooy li wér loolu mooy dëgg ñoom noonu la ñuy fonctionner du caagee ni ñoom ñoo naan lii ak lii ak lii mooy am déedéet ñoom dañ naan leen wax leen ak nit ñi lii ak lii comme ni sallallahu alayhi wa sallam bi mu bi mu fi nekk euh, bu yàlla ma masaan soxla te daan yónni Jibril mu ñëw wax sallallahu alayhi wa sallam sallam wax nit ñi ndax bu bu sëñ Tuubaa dellusiwaatoon di wax mbaa mu yebal leneen lu dul nit di wax ñu bari duñ ko dégg wala duñu fekk sax fu muy loolu mooy sababu nag mu indi ay ay ay ay ay njabootam ñoo xam te ni euh, am nañ maqaama mi a am na ci ñoom loo xam ne mun na yëkkati lu toll na yoonu mu teg ko seen loxo waaye teewul nag ba léegi nag euh, ci sëriñ bi moo fi nekk du fi jóg ndax bind na ko wax na ko te loolu kenn mënu ko nattable hmm. te bokk na ci firnde yi am na kilifa gu mag gu fi mës a ñëw biñ ko waxee ne ko ki ki samp yoon wi bi mu demee léegi matagut juróom-ñett fukki at mun na loolu mënul nekk moom daa da li li ko gëm li li mu mënoon a gëm mooy ñu ne ki ko samp ay sataatam ñoo fi nekk ndax développement bi mu am moom mënul gëm ne daal ci téeméeri at nit mun na liggéey lu toll nii mun na liggéey lu gaawe nii loolu nag bu dee saayir du yomb mais bu dee baatin du du ci doon dara te loolu mooy li am yoonu murit sëñ bi moo koy coordonné boppam ku ko soob moo la fi teg tekkiwut nag ne ñi fi tegut soo buñ ko déedéet tekkiwul loolu waaye ñi nga xam ñoom ñoo fi nekk daal du ñu am benn lu lépp lu ñu yëkkati rek nañu xam ne ci seen baat la jaar waaye Serigne Touba ko wax. Mhm. te loolu moo mooy li nga xam te ni bokk na ci li gën a dëgëral yoonu murid. Mhm. sànq tamit euh, ci biir wax ji nee nga ndomba tànk mënul weesu nga nekk xalifa sëñ Touba nekk xalifa sañ Fallou mhm. mais terewul euh, ak ak ak euh, lim ndomba tànk yooyu lim doon bëri bëri ak li nga xam ne mooy charge yi nekkoon ci kawam lépp terewul ñu bëri seetu nañ ni Serigne Bara ni mu doon dundi avant même bi mu nekkee ci xilaafa bi na la doon dundee loolu lan moo ko ko mayoon. waaw loolu mooy loolu mooy euh, war garam ndax jort naa ne nit bu soppi ko bu dara ñëwee mu soppi ko daa fekk la mu nekkoon waru caa nekk loolu mooy waral ngay soppeeku mais bu dee yow la nga nekkoon démb ak li la fekk si tey it benn la soppiku mënu fi am te mën naa la jox benn anecdote dama mas a am bis ba muy doog a toog ma tuggul weer ma ñëw ne ko bàyyi dama bëgg dem Dakar mu ne waaw ma ne ko oto sangam de laa bëgg a yóbbu mu ne ma oto bi nga yor na lu ci ne ma na ko ah jamono kat. fi mu ne nii boo waxee ñu ne doomi xalif général des mourides nga nangam ak nangam mu daal di fekk mi ngi toog ci suuf mu daal di àndu si ne ma saaliw man mi ko doon soppi ko ma yéen lu ci seen yoon wallaahi bokk na ci nag man li ma gën a dimbali nekk jëm fi nekk lépp baat baat boobu ma njëkk a wax ca laa jàpp nee na man mi nga xam ni man maa doon xalif général soppiku ma man yéen lu seen yoon demal bu ma fantoo xam nga loolu loolu am njàng la moo xam ne mooy li am mm-hmm. donc moom la mu nekkoon démb mooy jëkkit jullit yi rawatina taalibi Serigne Touba yi ku ko mas a xam. wala nga miin ko da nga ko daan romb ca garab ba ci buntu kër mu toog. la preuve année mooy bi mu nekkee ci xilaafa bi tamit terewul fi mu doon dem maanaam calendrier am soppeekuwul bu doon dem di seeti ji nit bu dat bi ñëwaatee day dem. moom laa loolu moom. ay déplacement am yëpp. moo tax ma xool loolu xam nga man lam lam lam nekkoon démb la waroon a nekk li ci ci dolli gu tey it da ko da ko gën a sas waaye warul tax mu ba nit ñi. amul benn kër këru diine bu mën a taxaw ci senegal ne El Hadj Bara taxawu fa. Mhm. doo ko dégg parce que bokk na ci ci ci xalif yi gën a mouvementé maanaam ñi gën a ëpp luñ doon déplacé wu ci ci kii bi. voilà parce que xam nañ ne fu mu dem rek du yem ak fu mu demul. Mhm. tey jii ab dëkk lu mu roqe roqe roqe roqe wala lu mu nekk lu mu ñàkk ñàkk tur Sénégal buñ nekk xalif national di murid na fa rek keroog yéen journaliste yëpp moom ngeen di yendoo te moom xam na ne daa daa jëlale baatin ba mu fay sotti bu fa demee. waaye njëriñ la mën di jox ci saa yir rek loolu dana ko jaral mu jóg ci loolu bokkoon na ci li nga xam moom calendrier mënul woon soppi ko ndax man bi ma jógee ci daara ji 92 mu jox ma ma sëñ Saliou ma jógee fa 97 ba ni mu demee àjjana mosuñoo tàggoo dem nañ ci kër sax néegu ñax ba mu déggu daa wàcce ci kawam wallaay lancim te ñu bari xamuñ loolu keroog ñoom doon seet si bëgguñ woon mu dugg seen néeg ndax néeg ba ni mu ñàkk dëppoo jamono waaye mu ne leen nag nit boo ko dee seet fa mu nekk nga koy fekk fii mbaar mii ngi ëtt bi ngeen ma teg danaa dugg ba ci seen biir néeg yi kere bu mu duggee bi muy dugg bopp bi dafa laal bunt bi ba ba ñax mi topp ko am na ñoo xam ne tey ku noon waxoon na leen tey fii ñu nekk man mii rek nga xam ne du ma dara waaye ñu ngi may tudd sëñ tubaa sax dana leen fekk seen biir néeg duñ ko gëm rawatina nag sëñ tubaa sëñ Abibu mu sëñ Fall wax na ko nee na am bis sëñ ñëw tuddal la sa doom loolu yombul te kenn ku ne xam na def na lu ëpp loolu ci ak nekkam. Hmm. su ma juumul yaakaar naa bokk na ci xalifa yi njëkk dem ca palais ba foofu palais de la république. waaw sëñ Abdou Lahad demoon na ca. Hmm. sëñ Abdou Lahad demoon na ginnaaw bi yaa moom mooy ñaareel bi wala mooy. moom mooy ñaareel bi. Hmm. léegi loolu eh, àndoon nga ak moom est-ce que mën nga ma dellu si waatal ci loolu parce que bokk na ci li gën a marqué nit yi ci ci jamonoom. loolu moom euh, waaj tax gi ak nekk ga dara ëmp ma ci boo seetloo sax image bi. bi ñuy wàccee ci oto bi bi mu jógee euh, Patte d'Oie di ñëw kër Sëñ Tuubaa man maa doon dawal oto bi ku xool image bi man maa doon dawal bi ñu jógee waatee kër Sëñ di dem pale it dawal bi ñu wàccee man maa yor saag bi nga xamante ni li ñuy wax doléance yi ci la nekk euh, kii boobu audience boobu lu lu nekk mun naa ko ci wax parce que fekk naa programme bi hmm. bi mu fa nekkee it amul benn instant bu sëñ astafurla benn diggante bu ndaw rek la Ablaye Wade toog ak sëñ bi te nekkuñ te nekkuñ boobu ñu ngi saal bi leen toog mm. te boobu sax maa ngi koy nettali sama benn xarit fan yi rek bi ñu toogee ñoom ba waxtaan da pare euh, yi kon mo julli di yóbbanteeg soxla yi Ablaye Wade moo génn ñëw woosi ma ndax ñoom ñaar doo nga fa nekk dafa aw kenn génn woosi ma mm-hmm. kon Ablaye Wade ci ci saal bi ñëw taxa ci buntu bi ne ana Saliou Mbacke ma ne ko maa a sëñ bi ne nga indi kayit yi mm-hmm. rek ñoo fa nekk te bu ñaar nee ci mu nekk ñu soxlañ kenn ci bit te te faaw kenn <laughs> génn woote te Abdoulaye Wade dëgg na oyof <laughs> kon lu bari fekk naa ko ci. donc loolu li ko li ko li ko sabab mooy benn ci rataxal diggante euh, yoonu murit ak état senegal Sénégal musul ñagas mais waxin la ndax euh, Cheikh Mamadou Lamine jullit yëpp la fi nekkaloon waaye bokkunu ci li li ko yàlla euh, téyeloo muy njabootu Serigne Touba te kenn ku na xam ne ne ku dox ci réew mi rek. wala bokk nga ñu bari ci réew mi am na jiite ci état taxoon na ba état bi ñemewul sax population sénégalaise ba leen teg yenn yi rawatina yoonu murit parce que tey Abdoulaye Wade am na loo xam ne boo ko defoon ñu xam ne Alaaji ko dindi loolu la preuve ñi ñuy jàpp yii ngay dégg daawoo ko dégg. waaw parce que jamono boobu tamit Macky Sall bi mu fi amee ay diggante ak Abdoulaye Wade dafay dafa ñëw Touba fii def fi ay quelques jours ci moom. mun naa la ci nettali lu kenn mënul dindi Macky moom ngay wax. jóge nañ Patte waa man toog naa ba ay 18 heures may bëgg a génn sëñ bi ne ma bul tëri bu guddi dafa am fu ñu war a dem boobu Macky Sall mi ngi Mermoz ñu ba une heure matin ma dugg ci oto bi man sëñ bi sëñ Galas Kaltoom Omar Sène mi doon dawal ñu dem kër président Macky Sall bi ñu demee dañoo génne sax oto Macky Sall ci garage bi yóbbu ko feneen jël oto sëñ bi dugal ko ci garage bi tëj ko ngir ñu bañ xam ne sëñ bi ñëw na fi. keroog lañ fa doon xewloo lépp man maa fa nekk sëñ Galas Kaltoom Omar Sène Macky Sall soxna Marème Faye amul kenn ko fa nekk lañ doon xéwloo ci boppam rek Marème Faye moo ko doon indi la ñuy waxtaan dara ump ma ci waaye nag du loo fekk lépp nga mën a nettali hmm. moom mii tey di président de la République tolloon na fi ay jafe-jafe ñu bari xam nañ ko woote na na woo ne ma téléphone man sama bopp ne ma damaa bëgg nga wax sëñ bi mu dimbali ma ci Ablaye Wade nangam ak nangam ba ma ñëwee wax sëñ bi daf ma wàllu ma dikkee ma ko mu yëkk téléphone jox mun naa ko tudd ndax Sénégal yëpp xam nañ ko mooy passeport diplomatam bi mu téye woon. mun naa tudd loolu ndax Sénégal yëpp dégg nañ ko. loolu man mii ci man la jaar. keroog bi ma président wooyee dama damaa bëgg nga wax sëñ bi mu dimbali ma ci Abdoulaye mu jox ma sama passeport ndax dañ ma invité tel bërëb ak tel bërëb ma caa bëgg a dem. man maa ngi toog ak Galas ne suma rek ma jóg wax ko sëñ bi sëñ bi ne wool ma dikkee bi ma wooyee ma dikkee ma wax ko mu delloo ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne gis nañ tamit digganteem ak Idrissa Seck ak homme politique yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi yëpp accessibilité boobu lan moo ko waraloon yéen njabootam yéen la wala sëñ naturellement moom moo meloon noonu ñi sax dañ ko daan bañal yenn yi moom moo ko bëggoon boppam dafa ma wax ñetti yoo xam ni nii ku mu doyul dara dootu la doy mun a saal yu mën a kan munuma ñett yi ku mu tee sa soxla faju doo ñëw ci man mun a ko bàyyi mun a ma bo soxla soo xam damaa war a bind lettre mbaa ma war a woote téléphone mbaa ma war a sol sama daal dem kon ñett yi donc la ñuy faje soxla ci saayir nee na ñett yi ku muy téye sa soxla faju doo ñëw ci man su dee soxla soo xam daa war a bind lettre day bind bu dee doo xam daa war a yëkk téléphone woote day woote bu dee boo xam ne daa war a sol dàllam dem day dem amul ci woon xajj ak seen moom dafa jógoon rek taxaw rek ngir nit ñi lu ñuy yittewoo rek mu ne ca daan na wax it ne tey jii tey bu ma yoroon lenn loo xam ne nii sama njaboot xiif nañ ba mar njabootu jàmbur soxla ko njabootu jàmbur laa ko jox bàyyi sama gos wallahi rangi wax na loolu mhm. te jëfe na ko ndax nit amul lu boppam dafa amoon benn benn qualité bu ko yàlla mayoon boo xam ne yombut mooy tabe ci sa daraja ñu bari seen alal la ñuy tabe mais ci sa daraja am na bis ñuy dem Kaolack mu ne ba ba ñu programmé ba war a dem ay nit ñëw li ba li yoon li yoonu murid baaxoo rek diw wuroo faa dem diw yàq dew nangam diw daal ab transporteur la nengu nangu mu dara Kaolack ba mu koy wax nag fekk ma ko damaa ñëw mu nettali ma ko te ñaare yàlla dimbaloon na ma ci loo xam ne war na ko wax rek même bi ma ko fekkoo su ma ñëwee dama ma wax ko mu ñëw mu ne ma ah diw nee na Kaolack gi ñu waroon dem talaata daal jëru ñu fay dem nangam nangam ma ne ko ah man de bàyyi kooku miinu wax dëgg yàlla de ginnaaw xas nga ko wax daal ba tey la alxames soppi xaju def mu ne li tax ma lay laaj sama kàddu googu nga may sàmbale moo tax lu ma dugg di la ci dugal parce que comme ko waxoon na ne naa fa dem rek bu ko yàlla dindi war na faa dem keroog loolu ma tontu man ko man xawma ci kenn ci ñoom waaye nag ginnaaw yaa waxoon ne da ngay dem daal te tey la alxames soreetut bu la ko dara fommuloo mu ne lii moo tax lu ma dugg di la ci dugal ndax sama mm-hmm. loolu bokkoon na ci ay ay qualité yoo xam ne yàlla yàlla yàlla defal na mm-hmm. loolu digganteem la ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi mais liggéey digganteem ak liggéeyu Serigne Touba bi tamit amoon na yéene torop itteewoo woon na torop pour pour gën koo yeesal gën koo jëlee mu gën a dem ci kanam. waaw xam nga loolu euh, ni mu ko waxee daal dama bëgg Touba mel ni Makka ak Madina te xam nañ ne képp ko wax ashhadu an laa ilaaha illallaah Makka ak Madina mooy sa référence. Mm-hmm. te loolu waxu ko rek noonu toog këram da ko dox ni ko ñenn ñenn ñi di waxee fanweeri weer yu mel ni fanweeri at. Mm-hmm. te loolu gis-gisu ñenn ñi la rek waaye man sama gis-gis sax weesu na fanweeri weer ndax bi mu nekkee ci jamono ci Tuubaa ci saayir ba léegi saa su ne rek mu ngi fexe lu liggéey Sëriñ Tuubaa bi yokkoo ñu bari ñoonu murit na jàpp nañ ne fekk nekkoo xalif général di murit rek doo doo nekk kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa loolu ñu bari dañ ciy juum mm-hmm. fanweeri weer yi day loo xam ne nit ñi ci lañ gën a teg seen bët mooy li dëkk bu Sëriñ Tuubaa bi rawatina jumaay Tuubaa ji nga xam ne Sëriñ Tuubaa mu lu moom te ni ko ñëpp di defee d'ailleurs sëñ Sidi Maxtaar mi ngi ci loolu képp ku fi ñëw rek jamono janga nga tombeel rek da ngay fexe jumaa ji dëppoo ak jamono jooja te loolu ci loolu la ñuy dox waaye nag kenn ku ne xam na it euh, jumaa dëgg la mooy ponk bi nga xam mooy euh, bërëb bi nga xam fi dañuy jàmm yàlla waaye nag laata ngay ñëw ca jumaa ji daa foo war a jaar muy ay tali muy ay làmp loolu tamit xam na ko te loolu dox na ci kenn ku ne gis na Euh, kër euh, doomi Serigne Serigne Touba yi lu mel ne Daaru Xuddoos ak feneen kenn ku ne xam ne gis na la mu fa def. penc yu mag yi yëpp. kenn ku ne xam na ne fexe ba jokkale leen tey jii foo jógee dem ci fa ca des jort na du ma ne doo dox ci suuf de waaye du bari te loolu def na ko nag ba lépp daj jumaa ji te moom dafa bokk ci ñi njëkk a marqué yoonu murid ndax fii kër Serigne Touba nekk tey moo ko moomoon. ah mooy résidence moom moo ko moomoon sëñ Fallou ne ko. damay defar jumaa ji dama bëgg doomi sañ Tuubaa yi wër jumaa ji kon dama lay toxal yow mu ne ko man boo ma génne woon dëkk foo ma nekk bu mu xëyee ñëw ci yow ci la ko joxe ñu jox ko sëñ Basiru sëñ Basiru bi mu bi mu demee àjjana sëñ Moussa Basiru sëñ Abdal laajaat ko ko ñu jox ko ko muy kër sëñ Tuubaa kon kër gii tey kër Alaaji Baara la woon moo ko uufoon noonu te ci ndigalul sëñ Fallu la ko ko joxe ngir mu wërale ko eh, njaboot sëñ Tuubaa gi kon kooku yàgg naa liggéey yàgg naa doon taalibe démb bu tey doo ko ñëw loolu lu waay gàtt gàtt xam-xam xam na ci bu ñu dellu sa ci dëkk bi tamit comme ni nga ko waxee rek lu ko yitteeloon la pour man vision bi amoon ci dëkk bi lim dox lim dox lu bari génn ba xam lu bari ci monde bi moo taxoon ngay gis ne kii am na benn vision bu boo xam ne ni am na ko ci dëkk bi fu mu ko bëgg a yóbbu bi ngoog ndax dañ daf daan daf daan li ñuy wax copier day dem fenn gis dara mhm. xam nga màkk moom kenn ku ne xam na ne moom moom moom moom sëtu suñu tubaab bi mën naa ne sax bon. leeru ma d'ailleurs ñaata yoon la la aji ji. 47 fois 47 <laughs> fois mën nañ ne mooy jullit bu ëpp lu mu dem màkk ci Sénégal wala bokk moo ci gën a siiw amul ko ci dab. ban âge la la la commencé aji kon. yii bi mu sëñ Fallou ngi ma juumul budul 61 daal dama ci bañ lu ma leerul nag waaye daal 47 yi moom maa toog mboq ndax nit moo ne 37 mu na ko ba mu wàññil fukk yi. munoo ko sa baay munu ko loolu maa ko dégg ci noppam nit moo ne 37 mun ko ba ma wàññil sama fukk munoo ko sa baay munu ko donc xam nga béréb foo dem 47 fois rek. Mhm. yitteel na la. dëgg la ponk l'islam bi moo ñu fa yóbbu ñu ñëpp mais kon amoon beneen gis-gis mu ñu doon gis boo xam ne démb la woon ñu bari xamuñ ko woon. Mhm. bokk na ci maxam mi ko suñ suñu borom defalit surtout suñ tubaab bi ëpp lu mu julli ci jumaay tubaab moom la. waaw parce que neen ginnaaw sëñ Abdou Khadir moom moo noonu moo doon nekk ci ginnaawam. amul benn sëriñ sëriñ Abdou Khadir yaakaar naa waxtu yëpp rek moo ko daan taxataat lu jumaay Tuubaa amul benn benn benn ajjuma boo xam te ni am na ci ajjuma boo xam ne sax gaaru saayir dikkal na ko waaye loolu lu yéeme da caa am ndax alxames dafa amoon alxames dafa tombé mu amoon tànk bu buy metti tànk bi neewi lool mais. bu ajjuma jotee rek day wér wallahi alazim billahi wallahi wa taala te li may wax nii ñu bari mun nañ ko seere du wér pelek mais day rees ba mu mën a dox dem julli te bu gaawoo mu mettiwaat wallahi alazim kooku maa ci teg sama bët kenn nettali ma te te dinaa ko fekk lu may wax day leer kon kooku amoon na amoon na maq am lu ko yàlla defal ci ajjuma bu réy réy sax moo tax ñaan jii di ñëw tombeek ajjuma lu yéeme la mm-hmm. lu yéeme la donc kooku suñ dee wax ci moom ci li ñu xam rek ak li ñu dund ak moom yaakaar naa ne suñu xel sax nu jàpp lépp mm-hmm. ndax koo xam ne dëgg la te may ki gën a tuuti nag mun naa ne ci lim ci ci ci nga xam ne mun nañu wax ci ñoom mm-hmm. ndax ni ma koy waxee rek Cheikh Amadou Lamine du du koo xam ne da mook sama maam la woon wala mook sama baay da nga naan maag moom maag moom la woon yàggugul daal mm-hmm. donc kon fàtte xaju fi yéen njabootam naka la doon dundee ak yéen parce que ni mu woon ak yéen dafa mel ne liñ koy xawal faral di gis ci kilifa diine bariwul noonu. comme ci wéetal da nga yaakaar ne yow rek la am naa sama rakk yoo xam te ni mas naa am ku ñëw bis jigéen lañu jam dara jub si mu ñu ñaan ko li ñuy waajtaayee mu jox ko ko nekk nag bu diw xamee li ma la jox rek bu ëllëgee dootu mën a jox <laughs> wallahi na loolu ko tontu tudd na tur ne ko bu diw xamee li ma la jox tey boo liggéey ba ma laajee du ma la jox noonu la daan doxalee. soo wéetee ak moom moom daal fexeel ba boo wéetee bul tudd sa morom ci lu ñaaw waaye nag moom kenn ku ne mën na koo nax njabootam gu toog kenn ku ne mën na ko nax am na xam ne dañoo demoon ba léeg bu ñu ko laaj ma jox la tuuti sax dañuy ñëw jël jël jël kaala gi poñe ko bàyyi da nga may jox mu ree waa léegi damay ak damay damay def nangam nangam waa bàyyil ma jox la te loolu loolu loolu yombut mm-hmm. kon nag li mu doon dundee ak njabootam mooy ni ko lislaam santaane xam nga jaboot dafa nekk àq boo xam ne dafa war ci diggante ak waajur mhm. te ñun xam naa ne ñu bari matali woon suñu diggante ak moom waaye moom gàcc ngalaama ndax bëgg na ci misaal li lay la bëgg na njaboot mais xoolal ni mu bëggee doomu aadama ci des mhm. loolu firnde la ci ne rek yow ku ku ku bëgg njabootam même boo nekkul ci biir njabootam da jox firnde ne yow kii ku bëgg njabootam la ndax fi mu tegoon doomu aadama loolu rek firnde la ci rawatina nag li nga xam te ni moom lu ko dund ñu xam ko mu nekkoon nit koo xam te ni ku laabir la ku yaatu la ku tabe la mais nag li ëpp solo mooy tabe ci daraja te loolu la ko yàlla defaloon. Mhm. parce que loolu am na lu mu benn lu ma ci histoire ma ci dégg mu ne day toog nii sax kenn ci yéen ñëw jël téléphone bi ne ko am rek mu daal di wuyu du xam sax kan moo koy woo. ci koo xam ne nii mën nañ ne <laughs> bokk nga ci ñi nga xam ne ñi gën a kawe ay maxaama ci àdduna bi ci nga bokk. loolu daan wax dafa daan wax naan sama téléphone bi xam nga bii doo ko toog ñu bari dañ ñëw day bàyyi téléphone <laughs> ba sax ñu nëbb yi. comme maa féete woon ci wàllu lu ci bari ak wàllu oto yi mu ñëw mun ma gaa yi dañoo jël sama téléphone saxulaa damaa ñëw mun a ma ba bokk ci ñi doon ñi doon ñi ne dama bëgg bàyyi téléphone man téléphone yëpp jël nañ ko ma ne ko ah a loolu bàyyi yëgu ma ko mun a kaay dem Sonatel wutali waat ma yeneen ma dem wuti yeneen ñu toog ab ab diir mu ñëw moo mun ma dama bëggul ma li tax bokk na ci li tax mënuma bàyyi téléphone ma ne ko waaw mun ma bi sëñ Moustapha Bassirou nelawee trois heures du matin la ma mun woo ni mu ko waxee laa ko nettali sëñ Muntaxa mm. la ma woo ñu waajal ko ma dem fa ñu taxaw ko def lépp mm. te ba yéen ñi kenn ku ne yaa ngi sa kër nelaw ma ne ko waaw munuma benn ngoog ma bërki dem deux heures nangam la benn taalib sëñ Tuubaa bu nekk Sapon woo ma na ñu ngi nii six heures lañ ko doon dugal ci avion bi pour refoulé ko Sénégal mu woo ma téléphone ma ñaan ci sëñ Tuubaa bi may julli tisbaar la ma waat ne bàyyi nañ ma daan ne kon loolu ndax juru yor téléphone ma daan waaw mu daal jël loxo bi tàpp ma dama loolu jar na yor téléphone te loolu ba muy am yi ñi kenn ku yaa ngi sa kër di nelaw kon su ma yorutoon téléphone lu ma mun taxaa di waxee ne si Moustapha Bassirou ma jotee ba ma mën koo ñaanal ci yàlla ak sëñ Tuubaa ba yàlla dimbali ko nañ bàyyi ak sama téléphone yi nëbbul kenn yurul kenn dara ku ko dégg doy du yem ak ku ko déggut ku ko wax soxla yàlla faj ko kooku nag loolu nag loolu mun dañàkk te am na ñoo xam ne mënu ñoo egsi faaw téléphone lañ naan woote am na koo xam ne saa tëngëj gi la nekk li mën naa ne ñaari at wala lu ko jege saa bu xëyee dana dugalal sëñ bi crédit cent franc <laughs> saa bu xëyee dana ko dugal cent franc ba pare woo ko ne ko dugal ndax jot nga ci crédit bi mu ko waaw mu fekk ma fi bis ma woo ko ne jot nga ci crédit sëñ bi ne ko waaw sëñ bi copie ne ma ah ma man xam nga daan ndax mënu ma koo xool. cent franc crédit sax wallaay bis dana ko dugalal crédit cent parce que kooku loolu la am. da ciy boole dugal crédit cent franc ba pare woo ko ne ko ndax jot nga <laughs> mujj gi sëñ bi naan ko waaw ndax xamul ba xam ne ni ñu koy xoolee léegi nag am léegi nag loolu kooku cent franc yooyu tey ay milliards lay doon ci moom ay xéewal lay doon ci ndax loolu la am hmm. nangul na ko ak it loolu nga xam day dugg ci histoire ba am ndax yaa ngi ni di ko nettali te ñeneen ak ñeneen dinañ ko xam ba moom tamit nekk lu mu ci tëroo kon euh, lan moo taxoon man ngeen ngeen bëggoon nangu téléphone yooyu yëpp est-ce que tamit parfois entourage yenn kilifa yi itam duñ ci ñoom xam nga soxna si bu dee la ñuy wax xam nga mbir moom booy boo seetee nit rek da ngay juum da ngay seet yàlla faaw nag comme ni jamono baaxoo ñun dañoo dañoo daf ci am mën mën naa ne man sax dañoo bëgg la ngay jotee sëñ bi nga jot leen ko. bu ko defee intermédiaire yi nekk ci diggante bi sa affaire man caa baax ndax sëñ bi kat bu dee yow loo soxla da nga koy wax direct. Mhm. xam nga yow ka ka ka ëpp xaaj Sénégal wala ka ka dàq joxe. woo la ne damay soxla sëñ bi nga nga war na moom indi ko yóbbu ko dalal ko defal ko nangam bu ñibbi du la seetaan ana moom nag mu am soxla jot sëñ bi wax ko directement. te sëñ bi xam nga du négocier ak moom comme moom ni ko gars yi di defee. léegi nag loolu du ñu arrangé. Hmm. loolu benn la ci rek batin ba na xaw ma ko waaye loolu benn la ci yi nga xam te ni bëggun nañ lu tax am na ñeneen ñoo xam ne it fi ñu gisee woon mooy ñoom pour noppal ko am na bisoon ñoom pour nappal ko. Hmm. waaye moom nekkoon na ci liggéey boo xam ne mission boo xam ne nit ñi ñoo ko jàppee coono waaye du du doon loo xam ne moom coono la ko jàppee. ba tax na daawul xaar sax néegam ñu ko fa mës dugg rek. lal lal bi moom lépp ay bagage lañ koy teg. waaw waaw man mës naa fa dugg mais day li ma li ma gën a marqué ci moom mooy lu bëree bëri loo xam ne dañ ko koy defloo te jàpp na ni moom gënul ci moom du ko nangu. Ah, li bokk na si man li ma jàpp ne li ma dégg ne doon nañ ko kii moom pour muy informer ak mu yooyu parce que boo demee ci néeg bi tele ngay njëkk a gis nga xam day xam li xew ci askan wi di xam li xew ci dëkk bi pour mën mën a mën a euh, saafara yenn yenn jafe-jafe yi loolu la ko yàlla dimbale woon mën naa la ci nettali benn anecdote rek toog nañ ci télé bi wal fajiri sax di seetaan mu gis ci ko neexut mu ne ma wol ma Sidi Lamine Sidi Lamine su ma déggee dana xam li ma koy wax action bu baax ne ko gis naa télé bi nangama nangame suma ma soñoon dootu ci am te sénégalais bu def remarque loolu ba ba keroog lañ ko ci gëj gis ba fii ma waxee ni Sidi Lamine defaatul loolu loolu du ko ko te xam na ne loolu njuumte la waaye du njuumtal Sidi Lamine sax njuumtal ña fay liggéey la te dëppoot ak jamono mm. mu tere ko ndax du te du diine te loolu tey bu bu ñu nekkoon or su ma la leen tel nangam da danga xam ne loolu la te loolu bokk na ci li mu def moom dafa daan nekk loo xam ne day daan déglu rajo. Mm-hmm. suñu ma santoo ci oto bi nii bu rajo bi dee musique bu ko sawar fay daan ko taalal nee na soo bàyyee soo bañee déglu dara li nga bëgg a déglu mu romb la xam nga boo dee xaar ci misaal ab tàgge wala communique. Mm-hmm. ci diggante bi ñu ciy dugal leneen nga ne naa fay ba loola ñëw. buy romb doo ko yëg moo tax muy télé muy rajo muy journal sax. daf ko daan lire. journal d'ailleurs maa ngi dégg ci bi muy doo ko toog benn journaliste di wax ay qualité am mu ne day wax six langues effectivement da koy wax normal. six langues te benn la ci jàng muy arab ci maanaam ndimbalul ndimbalul bu ko yàlla defal la ak ubbikoom ak mhm. intéressé wu mu intéressé ci àdduna. Mhm. man loolu moom a gën a xam nga fii parfois bu ñu waxee mbiru kilifa diine nit ñi dañuy xool ci aspect baatin beeg karaama ya muy def mais. parfois tamit ngay ngay xool ci yeneen ci yeneen yeneen facette yi nga xam ne moom la ko yàlla may ci li nga mën a gis yow tamit da am solo mhm. man lu bëri bëri li nga xam ne jàngat naa ko ci moom mooy accessibilité maanaam jot gi mën a jot ci moom benn dafa yomb parce que buñ ko xoolee askan wi la fi nekkal bu mhm. xal yaay xalifa sëñ Tuubaa askan wi moo tax gën a bëri nga nga nekk fi ndax faj aajoye jaami moom moo tax bokk na ci tam ouverture am ku ñëw mën na laa déglu man mi sax su ma ñëwee wax ak moom mën na laa déglu jël jël ci yow xalaat. lool loolu bokk na li ma gën a marqué ci moom. que ce muy góor ak muy jigéen ku ñu ndax ñëpp am soxla. taalib yi ñëpp ci ne faw mu am écoute boobu ci nit ñi pour mën a xam soxla nit ñi moom yàlla dimbaloon na ko ci li nga wax rek maanaam nanguwul sax intermédiaire soo ma saan soo ma nit bidon yooyu nit ñi daan yor sax léeg-léeg nit fël ko moo koy jëlal boppam. yow mi ko fel soo bëggee jëlaat ci borom bitel bi joxaat ko ko day lankaat da koy jël ci borom bitel bi directement directement la koy jël ci moom parce que lii moom ci la aaj ci la yàlla jaar aajom faju mhm. mas naa nekk mas naa fettali bu fekkee benn bis benn waay ñëw di ko ñaan nekk ak soxnaam yàgg loolu mënut am doom euh, mu ñëw sëñ bi wax ko yàlla dogal seen bi ñaanal ko ba muy si waat tamit ci tollu at wala jàppatuma dat bi waaye ci diggante bi ñu jàppoon ne nit mën na bi am doom ànd ak soxna si ak doom ji yàlla dogal tamit ma fekkewaat ko mu ne ma mu ñëw ne ko yëkkati ñaari junni jox sëñ bi téye ko ni waa ji ne ko maa fi ñëwoon daaw nga ñaanal la maak sama soxna kii suñu doom la maa ngi ko mm-hmm. bi daal di takkati ñaari junni yi daan na ni daan na ko fan ak fan nga ci demagoon pour pour ah, am ko mu ne ko man kay li ma daj naa ko ordonnance bu ne jënd naa ko mu ne ko ah, ba jox ñaari junni <laughs> ah ba pare nga may jox ñaari junni li ma def nga may jox ñaari junni xam nga yooyu. Mhm. yooyu yàlla da ko ci dimbale woon. Mhm. dèjà kooku jàngal na ko jàngalu ko ne da ma war a jox lépp ñaari junni mais la mu koy leneen la pour ëllëg. Mhm. te nit ñi ma ngi koy jàngal ne ko yéen da ngeen bëgg a génn romb baatin. bëgg a dem ci saayir tey jii ku ci ab médecin bindaloon ordonnance rek wala nga mu consulte da nga ko fay xaalis bu dul jeex. boo demee ci sëñ Sidi di ko jox 1000 francs pour mu ñaanal la te la la sëñ Sidi Maxtaar di assuré kenn mun la ko assuré. mais loolu loolu nag loolu loolu njàngale mu loolu njàngale nit ñi dañu bëgg a bàyyi léegi li yàlla. bëgg a jëm ci leneen. moo tax toujours rek ci problème la ñuy dëkk. en quelque sorte tamit nit ñi dañ doon gis bu a baax sëñ Fallou ci moom parce que jëf yu bëri yu ñu def boo laajee mag yi dañ naan sëñ Fallou nii la doon nii la doon def bi mu nekkee xalifa. ah kooku nag kooku nag munu ko ñàkk roy <laughs> munu ko ñàkk ndax euh, nit meññ la rek doy na waaye nag mun nañ ne ci bi nga xàmmee ba. bi fi Cheikh Modou Fadal di jógee mosul tàggoog moom te sëñ Baara dafa nekkoon ci diggante ñaar ñoo xam ne lu waay gàtt dégg dégg dégg dégg ci yoonu murid xam nga leen muy way juróom Cheikh Modou Fadal ak turandoom Cheikh Modou Lamine ci mu rek bu ñu génnoon baatinu sëñ Fallu teg li ko Cheikh Mouhamadou Lamine mu Sëriñ Tuubaa defal fii ba àdduna tukki mën naa jamono li Cheikh Mouhamadou Lamine def ci moom fii ba àdduna tukki mën naa yor jamono rawatina nag sëñ Fallou di sa di sa wayjur mu jël lépp teg ne dafa am ñaari dégg ñaari histoire yoo xam ne mu yoonu murit ñu bari dégg nañ ko mooy ni sëñ lu jaayante woon ak Serigne Touba. Mm-hmm. moom tamit ni mu jaayante woon ak sëñ Fallou. yombut sa mag sa doomu baay taxaw ci àdduna yëpp di ko dégg mu ne kenn rek laa nangu ne moo ma gën a bëgg sama baay. sa Cheikh Mouhamadou Moustapha Falilou yàlla na yàlla doon yërmande ci moom wax na ko kon loolu loolu loolu seere mënu koo gën a weesu faaw ñu dellu si loolu ku toll ni sa mag ngeen bokk benn baay mu nangu ne yow yaa ko gën a bëgg seen baay firnde ji ne amul benn doomu sëñ Fall bu ko ëppalee ay turandoo sëñ Fall sama rakkal moom la ko tuddee. moom sëñ sëñ Baara. amul benn doomu sëñ Fall nag bu ko ëppalee turandoo yu bëree bëri. mënu ko lim. amul benn nag nag benn laax de doo mu benn doomu suñ fal boo ëppale Alaaji Baara am ay ay fal mais loolu loolu loolu rek firnde la nit nag li wolof di rek koo xamul noo koy def nam la dafa tax. Hmm. lii mu am faaw sëñ Fall ma da koo liggéey te sëñ Fall ni mu ko ni mu ko doon muritoo ci jël këram jox ko doomi suñ Tubaa noonu la ko daan jëlee jëmmam di ko joxaat doomi sëñ Tubaa dëgg na mu ci ñu bari dëgg nañ ci làmmiñam mu ne dawalal na Cheikh Serigne Saliou juróom-benni at. yoo xam man li may gàtt gàtt dégg naa sëñ Abdou Khadir tamit nekk naa moom diir bu yàgg yàgg. dafa am benn baat bu Ablaye Mbaye Pekh di wax te ko waxu géwél rek te defuñ ci attention mu ne ki daan garde tey ñi ngi koy garde garde corps bi daan garde tey ñi ngi koy garde amul benn doomi sëñ Tuubaa bu mu jamonoon te amul sa ngërëm waxuma ko rek en tant que doomam laa de doomi sëñ Tuubaa yooyu mu jamonoon seeni doom ñi ngi fi ñoo ma ko gën a xam sab mu sëñ ab sëñ sëñ sëñ Fallou waaye juróom tàmbale sëñ Abdou Lahat sëñ Abdou Khadir sëñ Mourtada amul sëñ Sohayb amul benn doomu sëñ Tuubaa bu amul sa ngërëm loolu nag mën naa yem ak ko amul mun na nekk sëñ Lamine am dafa am maqaama yoo xam ne en dehors de doomi sëñ Fallou sax da koo liggéey mm-hmm. da koo liggéey liggéey na ko ci way juróom d'ailleurs ba mu noppee wut na kat a ah, man Cheikh Moudou Fadal rek laa doon topp pare naa ci moom ñi fi nekk da leen topp la preuve bis bi suñu Abdou Abdou Khadir di dem mag Màkk suñu blaata ko woo booba doomi suñu blaata ngi fi mën nañoo dem Màkka mën na comme ci yéen nga dem bu bu neexoon suñu blaata day jël fukki militaire boole ko suñu Abdou Khadir ñu dem mag mais da ko woon ne ko yaa ma ci doy lu toll ni doomi suñu Tuubaa jël rakam jox ko doomam ne ko yaa ma ci doy dama bëgg mu def dafi farataam te ñëwaat. alaaji ne ko bu soobee suñu borom dinaa la ko yóbbu dinaa la ko indiwaatal fii mais yónnente booba rek maqaamu nit bëgg man ko ca am benn yónnente boobu suñu bilaat yónni woon ko rek daraja ju nit soxla ci doomu aadama rek mën ko ca am te moo ko def moo yóbbu suñu bilaat màkk indiwaat ko sëñ Fall bi mu fi nekk ñu bari tey jii ci ay ay doomi sëñ Fall ay rakam moo leen yóbbu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen lu ne def na donc kon kooku dafa nekk koo xam ne dafa liggéey bu tey doo ko ñëw. kon faw lii mu am da koy am ndax da koy liggéey. dafa doon faral di wax léeg-léeg sax mu ne li fi nekk mayewut saraxewut ablewut leblewut day jaay te ku yor njëg da koy jënd man li ma am dama ko jënd te effectivement loolu moo am. kenn ku ne xam na liggéeyal na Serigne Touba ak njabootu Serigne Touba gi ak taalibe bi Serigne Touba ak jullit yi ba yàlla may ko li mu ko may. kon nag ñun ñi nga xam te ni ñoo ne ci ginnaaw muy doomam ak njabootam képp ku ci soxla faaw da ngay ñafe pour am ci loolu. moo tax ku masaa da ñëw yëkkati dara jox ko dana la ca wax loo xam te ni bu ëllëgee da ngay gën a góorgóorlu pour pour pour pour pour mën a mën a mën a mën a mën a def lépp te ña ko ci daan def ñun xamante nañ suñu biir nañ xool tey ak démb ak ëllëg loolu yàlla dimbale na ko ci. Mm-hmm. xam naa bu ñu toppee waxtaan bi moom fi la ñuy yendu que géej la goo xam ne du jeex mais bis bi le le quinze la lan nga ñu mën a tënkal ci sëñ Baara ak ak bis bi nga xam ne yéen a ngi koy amal yéen ñun njabootam sax man <laughs> ñëpp si lañ bokk. Ah, ah, ak dëgg sax ak ay dëgg sax ak sax loolu loolu loolu nga wax. Mm-hmm. dafa nekk loo xam ne dëgg gu wér la ndax kenn génnuwu ci njabootam. Mm-hmm. <laughs> ku ci génn yaa ci génn sa bopp waaye moom dafa amoon doomi li ñuy wax géeño ak doomi deret te loolu ñëpp xam nañ ko bis bi nag bu ñuy dellusee ni ñuy war a defee bisu nit ku baax ndax nit bu fi nekkee di jaamu yàlla diir bi mu fi nekk soo koy fàttaliku ca lam nekkoon da nga koy nga koy fàttaliku la preuve euh, ñi ñu fi tuddee yu bari ci senegal ca loolu lañ nekkoon ci Anta Diop lan la woon. Mhm. Hmm? Iba Iba euh, stade Iba Mar Diop yooyu lan lañ woon kenn ku ne li nga doon. Mhm. suñ lay fàttaliku ak la nga doon dund ca loolu lañ la war a fàttalikoo la si jiitu ci bis bi mooy bañ na ko si Amadou Moustapha ñaan la wax ñaan gi ñuy defal màggal du cant du yeneen ñaan la ñuy def ñaan nag kenn rek nga ko war a def mu yàlla te lenn la fi bàyyi muy alquran kooku mooy premier point bi nga xam ne ku dégg suñu kàddu ak foo mën a nekk ci àdduna bi faaw ñaar yi dana la dal da nga ko mën a def def war nga mën koo deflu kon ñu ngi la koy ñaan foo nekk ci àdduna bi nga jàng alquran baa nga jàng lu ko baa nga jàng xasida wala nga julli ci sallallahu alayhi wa ak astafurlah yoo mën a def mm-hmm. ñii ne yool bi Cheikh Mahamadou Lamine moom mook ak ñam fa fekk ak ña fa fekki ak ñun ñi fi des loolu mooy li jiitu ci bis bi muy am ajjuma du war a tombeek le 15 mai te Touba Aliya kon ñu profité ci occasion bi di ci woo jullit yëpp te xam ne li li li ñu bëgg defal ko ko dañ cee lot mooy nombre de kaamil yi ñu bëgg a jàng nombre de ñu bëgg a jàng turu yàlla yi ñu bëgg tudd dañoo bëgg ñëw ku ñu ci dimbale ngir na ko Sëriñ Tuubaa sàkko woon te bisam danaa bëgg ngeen ñëw santale ma yàlla ñun tamit foofu la ñu taxaw ci ndigalu Cheikh Moudou Moustapha fu waay mën a nekk bul na rek mënumaa dem Touba yàlla mi ngi fépp joti na fépp kenn ku ci nekk yàlla moo la supérieur fa nga nekk moo fa nekk li ko olof yi wax yàllaa ngi fépp déedéet fépp moo nekk ci yàlla yàlla nekkul fépp de fépp moo nekk ci yàlla kon boo ne yàllaa ngi fépp day mel ne da ngaa bàyyi dara mais fépp ci boppam moom moo ñëw ne ci biir yàlla kon nag loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi lancé message bi pour ñaan yàlla rek jullit yëpp rek ñu ñaanal lañu sunu jàmbaar ja sunu yaakaar ja ki nga xam te ne amul lu ñu doon tey moom la moo ñu boole Serigne Touba te it euh, defal ñu loo xam te ni kenn kenn ci àdduna mu ñu defal lu ko raw ñun amul ñu dul Cheikh Mouhamadou Lamine kenn ku ci nekk fa nga bunt ba nga nekk rek jàpp nga ne la Serigne Touba am lépp foofu la ko sotti kon loolu day tekki baraleeg Serigne Touba kon loolu ñu ngi ciy ñu ngi ciy profité di ko ñaan bu baax bu loolu bu xasida yi jàllee ah, alxuraan ji eh, euh, kii bi tudd tudd yéen a salaf yëpp nag la ca tege mooy bernde te loolu bokk nañ ni bokk na ci ponk yi yu gën a mag ci jàmm yàlla bokk na ci. li ma a mën a nettali tuuti rek ci lu maam Cheikh Ibra Fall rawee ñu bari mooy bernde yi dama jëlale li mu liggéey Sëñ Tuubaa waaye loolu rek am na ci maqaam moo xam te ni keneen mënu ko cee dab képp kuy wax joxe moom ba tudd Baye Fall ak ay bernde xam nga ne ca lay am sëñ Ibrahima doxoon na ko bu dem bu nuruut yàq rek des na nga ne bu des nuruut ak yàq rek des na kon loolu mooy bi ponk bi ci mujj nag ku fa ñëw daal ak koñ boo mën a toog saal boo mën a toog mbaar moo mën a toog bul toog loxo neen soo mënta jàng nga jàng xasida soo ko mënul nga tudd yàlla jéggalu ñaan yàlla suñu borom jotale ko ci yool bi moom moom ñam fa fekk ñëpp ak ña ko fekk ak ñun ñu fi des. ngeen mm-hmm. kàddu ngay tëjee. waaw kàddu yi mu tëjee mooy dellu sant yàlla bu baax rek euh, moom mi nga xam ne moo nu may kàttan may nu aslëf ci darajaam ba liñ bëgg a wax nu wax ko nuñ ko xalaatee te jotul ne noonu la noonu noonu lañ ko war a waxee. waaye nag lépp luñ ci juum rek euh, ñu ngi koy jéggalu yàlla mi nga xam ne nii moom waruñoo wax lu lu nekkul ngir luñ la ko tere ak itam mm, sunu mbokk jullit yi ñuy déglu nga xam ne waruñ waruñ leen a ci seeni nopp lu lu dul dëgg loolu ñu ngi koy jéggalu bu baax waaye nag di sant it euh, yow mi nga xam ne yàlla dogal na nga bàyyi sa lépp ñëw ci koo xam ne moo gën a ñàkk solo ci dëkk bi ndax yaakaar naa bu doon popularité ngay seet rek wala comme ni ñu koy waxee ku am bës da may teggi waaye nag. non dañ parce que dañ dañoo dañoo dund ni nga wax sëñ Baara mbiram ñu bëri fekkee nañ ko loo doon doon xale. gis la tamit nga yàgg ak moom lu bëree bëree bëri nga dund ko ak moom. moo tax ñu taamu tey. alhamdulilah mënoon nañoo seeti ay conférenciers wala yooyu mais dañoo bëgg nag ah, preuve à l'appui moo tax. ñu alhamdulilah dëgg la dëgg la waaw looloo tax moom moo tax ma ne kàddu yi fi yëkkati moom luñ ci juum rek ñu ngi koy jégalu te di ñaan yàlla yaakaar ji am ba ñëw fii yàlla bu ko yàlla tas. Mm. te rafet nañ ci njort bu baax ndax ci moom la ñuy tàmbalee ci moom la nekkoon ci moom la ñuy tëjee muy sant ko gërëm ko di ko tuubal di dellu di ñaanal rek suñu ay kilifa di ci jiital Serigne Touba yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér. Mm. di sant ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ndax uh, ñoom it uh, li ëpp solo ci doomu aadama mooy temps nit bu la joxee temps am rek la dara mm. temps dafa fort ci nit. ba loolu ku la ko jox desaltul dara kon ñu ngi leen ci gërëm bu baax di dellu di waat mbokk yi ñu déglu rek luñ ci jum nañ ñu ko jéggal te xam ne eh, jàmm bi moo doon wax ku gàtta xel moo doon wax ku ñàkk solo moo doon wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Alaaji Baara di rafetlu bu baax a baax waxtaan bi ak comme ni mu ko ni mu tëjee temps yi nga xam ne bàyyi na ko pour accorder li nga xam ne moom moo di waxtaan bi yépp ñu jublu si li nga xam ne moo di bisu Serigne Bara bisu ñaan bisu jàng alxuraan bisu jaamu yàlla le le le quinze crois le 15 le 15 allah ci ci ci àll yi ñu ngi leen di. wax ne lépp loo xam ne nii xew na ci bis mën ngeen ko suivre ci seen web tv alazhar touba point com comme niñ koy defee ci xew-xew diine yëpp dinañ fa nekk incha allah ngir jëral leen intégralité li nga xam ne moom moo di bis boobule ñu ngi leen di sant leen gërëm di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ba ngeen mën ñoo gis maam euh, Jibril Xule ci caméra bi sëñ maam Thierno Faye tamit duñ ko fàtte benn sëñ sooy bu Mbàkke maar ci montage bi ak équipe ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen dig daje beneen yoon jërë